saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey doole kook fës su fës bu njëkk ba dox ca diggante Papa ak Siteu démb ca hôtel Terrou-Bi le choc de l'indépendance lancé Papa Sow ouvre le feu Siteu tey diggante Papa Sow ak Siteu démb ca hôtel Terrou-Bi ci seen face à bu njëkk lu bëri xewee na fa ca jokkalante kàddu ya diggante Papa Sow ak Siteu dafa mel ni dañ doon raayante seen face à boobee joxante cër baa ëpp ndax Siteu lam doon xamle mooy Papa sama mbër la woon Papa naan Siteu yépp ku nekk yaa nga jàpp la nga jàpp Siteu la mu jàpp ca xelam mooy un pire combat latent à moom Papa Sow bu rëy koy xaar il a affaire à un vrai man duma como c'est normal que Modou Lo le soutien ndax ñoom ñaar ñoo bokk parcelle waaye combat bi ku gis état de forme bi ma gis fa ma jóge fa ma bëgg dem gis li nekk ci man ak la ma yokk gis Papa ak fa mu jaar ak la nekk ca moom ak fa mu jëm nga war a xam ne combat bi ne woon laay def mooy je vais attaquer ci wàllu xeex moom na amateur yépp xam ne on va se bagarrer jusqu'à ce que ñun ñaar danañ xeex ba am ku dem ardo li ma koy xelal moom si mooy qu'il augmente sa force de frappe ndax rien sera facile combat bi cin luy bax la amul ruq bu sedd ci nu bi démb bu baxut ca Siteu it bax na ca Moustapha Gueye kàddu ya Moustapha Gueye deuxième tigre de Fass yëkkati woon jébbal ko père ba xam le ne ba mësta faral 1992 la woon benn ba ñetta ca ne muy père ba Moustapha Guèye ak Mbaye Guèye beneen ba ñeenta ca ne muy père ba père Ndiir Mapenda Seck ak Tafa Guèye te père ba ba mu nekkee Fass ak léegi amul menn mbër mu fay takkite loxom demut ci yow même ba ci combat Gris Bordeaux ak Balla Gaye mujj père ba yëkkati na bu takku teg ko ci loxoy Moustapha Guèye xaalis boobee nag Gris Bordeaux gisu ko dégg ko olof nag dafa ne cin faqul ba nut yax wa ca nekkoon anamu wax da xam ne waxi picc la te nag moom bu ma wax ndax bu ma waxee face tas démb face à face jàllee ca journal record mu ñëw ci face à face boobee la mu xamle mooy papa menace tafa si takares mën nañ maa génne association waaye kenn mënu génne Fass le avril waa Fass laay àndal bëre te bàyyi daam moo may tëggal man doomu Fass pire laa kenn ëppale wu ma bu ñu demaatee ca sunu lamb dañ fay fekkaat pa Abdou Fall ca face à ba ba léegi moom la mu xamle mooy man kaana lillaahi kaana laahu lahu képp ku nekkal yàlla yàlla nekkal la man kaana pa Abdou Fall kaana paf production lahu ku nekkal pa Abdou dans ce combat combat bi rokk mu rokk lay doon ku joxewul doo jël muy journaliste di supporter di amateur moo ci bokk yem face à face bi février ku fayut doo fa dugg open press Siteu le mars ku fayut doo fa dugg avril plateau veille combat ku fayul doo fa dugg bésu combat ba nag waxi noppi moom ba Abdou Fallam doon maye maye na ko démb jàpp njàmburam bu nu jàllee ca Bombardier moom xamle na ne combat mag Eumeu Sène c'est à presque digganteem ak Eumeu ay réglages des foofu mooy combat mag Eumeu Sène tuuti moo ca des ku bëgg bi le revanche loo jënd billet xam ne taxaw na bu nu jàllee ca lit sans frappe tey ca Mbour Yékini moo fa woote teg fa 3 millions journal record la mu xamle ca galaa Yékini boobu mooy France seul contre tous moom mi jël millions ya ca arène nationale jël millions ya ca Iba Mar mbër yépp a koy xaar ca Caroline Faye ca 3 millions ya teereegaal gi ñoom seen cinquième journée municipal bu Bargny jërë ngeen jëf mbokk yi li ma nekkoon li gën a fës ci ëttu yéenekaay bi ñu leen di jox dig daje ba ëllëg incha allah